أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لقن لساني واحللا منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبد واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal comme ni ñu ko baaxoo àndi ak yéen ci ayi bis bu jot di jàngatandoo ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu te ñu ñuy ànd ak yéen ci suñu bind yi mujj ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne moom lañu tudd moom la tuddee munawiru sudur ba suñu bind bi nga xam ne moom la ñu mujj ànd ak yéen ñu taxawoon ci bunt bi nga xam ne ci la ci lay waxe lu jëm ci tuub muy bunt boo xam ne bunt ba ama am solo la ndax doomu aadama bi suñu borom subhanahu wa taala daf koo bind waaye bind ko ci ak matadi bind ko muy tooñ waaye bind ko muy def ay njuumte waaye bind ko muy def ay bàkkaar waaye bàkkaar yooye nag suñu borom subhanahu wa taala ci ak yërmandeem aku ñeewanteem doomu aadama mu defal ko buntu bi nga xam ne mooy buntu tuub nga xam ne saa bu fakkasaloo ba dugg ci bunt boobee nga xam ne mooy buntub njuumte ba def li nga xam ne mooy bàkkaar suñ borom bi subhanahu wa taala tijjil ko buntub tuub mu man caa tab bi tuub ngir suñu borom subhanahu wa taala man koo jéggal njuumte wala fakkasal yooyu nga xam ne dal na ko kon bunt boobu ci la ñu doon ànd ak yéen ci suñu bind bi weesu ci fi ñu taxawoon rek foofu la ñuy wéyale ba tey waaye it bunt bi nga xam ne moom la ñuy duggaat ba tey ab sof la rek ci bunt bi nga xam ne moom lañ génn ndax bunt bi sëriñ bi radiyallahu anhu daf ñuy jàngal li nga xam ne mooy maratibu tawba muy dégere wala mën nañu wax ne martaba yi nga xam ne moom la tuub amee nga xam ne day mel ni ay escalier yoo xam ne ku ci ne ca daraja ja nga toll rek ca tuub gu mel noonu ngay tuube waaye daraja ja nga toll rek la ngay def doonte ne mën naa xeebu ci bëtub koo xam ne eggut foofa waaye yow loola bàkkaar nga koy jàppe ba war koo tuub moo tax bunt boobu loolu lañu fi sëriñ bi di leeral mu ne faslun lii ab bunt la fi zikri maratibi tawbati ci tudd lenn ci li nga xam ne mooy martabay tuub muy degere wala anam yi nga xam ne ak tuub am na ko mu ne fa sabatun fa odda limeef na sabatun juróom ñaar minal maratibi ci ay martaba li tawbatin ñeel tuub tudra gog def na ko xam la dal makaati bi fa way bindiña wala fa borom téere ya ne na tuub day am na juróom-ñaari martaba yoo xam ne ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi bind nañ ci waaye ñi nga xam ne mooy ñooy borom xam-xam yi wax nañ ci lu yaatoo yaatoo yaatu muy juróom-ñaari martaba yoo xam ne benn bu ci ne su ca nit ka eggee ca martaba booba rek ca la ak tuubam di toll waaye kem bàkkaar yi nga xam ne moom lay jëf mooy tolloog martaba ba nga xam ne moom la tollool ci tuub su ko defee mu tuub la nga xam ne mooy bàkkaar yooyee moo tax sëriñ bi ne fa addu fa fa addu fa addu limeef na minal maratibi ci ay martaba li tawbatin ñeel tuub sabaatan juróom-ñaar tudra yooyu def na leen xam la dal makaati bi fa ña nga xam ne ñooy boroom téere ya wala ña nga xam ne ñooy way bind ña ay téere di boroom xam-xam yu màgg yi nga xam ne dañuy gëstu ci fànn googu tawbatu kaafirin tuubuk aji weddi minal kufri asadidi ca weddi gu taratarga bi izni rabbihi ci ndigalal suñu boroom ilaa diini sadidi jëm ca diine ja nga xam ne moo gën a jub tuub gi nga xam ne moo jiitu mooy tuubu ki nga xam ne mooy aji weddi ji yàlla ki nga xam ne moom dafa weddi suñu boroom subhanahu wa taala waaye ki nga xam ne moom dafa topp li nga xam ne mooy bànneexu bakkanam waaye mooy ki nga xam ne dafa topp li nga xam ne mooy bànneexam bi koy digal ay ñaawteef waaye topp lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala aaye mu koy jëf waaye boole ca bañ a gëm li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala digle wala bañ a gëm sax suñu borom subhanahu wa taala kon ñooñu mooy ñi nga xam ne dañoo réere li nga xam ne mooy yoonu suñu borom subhanahu wa taala te ñooñu nag la leen di xaar ëllëg bu fekkee ne tuubuñu loolu ba faatu mooy mbugalam suñu borom subhanahu wa taala bu leen jéggalut mën na leen a dal kon tuub ci anam googu benn martaba la ci tuub kon yéefar bi nga xam ne moom moo amee ak kéefar nga xam ne dafa weddi suñu borom subhanahu wa taala di jëf li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala di aaye wala li suñu borom subhanahu wa taala digle mu bañ koo jëf kooku mooy ki nga xam ne dafa weddi li nga xam ne mooy suñu borom waaye weddi na itam li nga xam ne mooy xéewal yi ko suñu borom subhanahu wa taala def kon kooku bu tuubee loolu benn martaba la ci ak tuub ak tuubam na muy demee nag mooy day dellu ci suñu borom subhanahu wa taala waaye sellalaat li nga xam ne mooy ay jëfam li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala digle mu taxaw ca temm di ko def waaye la nga xam ne moom la aaye mu taxaw ca temm ba moytandi ko bañ cee tàbbi mukk mukk waaye sellalaat li nga xam ne mooy ak gëmam daal di tuddaat li nga xam ne mooy baati seede yi di laa ilaha illallah muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaye bu ko tuddee ci aw làmmiñam ba pare nag mu boole ca di jëf ci ay cëram loo xam ne day dëggal baati seere yooyu nga xam ne moom la tudd nga xam ne tudd ko noonu rek bàyyi waaye daf koy tudd ba pare di jëfandikoo la nga xam ne moom lay wundu muy wéetal suñu borom bi subhanahu wa taala waaye sellal jaamu gi nga xam ne moom lay jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala waaye it gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tey topp yoon wi nga xam ne moom la indi te suñu borom subhanahu wa taala jox ko ko kon loolu mooy li ñuy wax rek ne al imaanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal gëm yàlla dëgg de buñ koy wax yéefar bi saa boo xamee ne tuub na gëm yàlla di jaamu suñu borom subhanahu wa taala lay dëggal ak tuubam mooy bu tuddee baati seere yi ba pare muy def lu méngoo ak li nga xam ne mooy baati seere yi loolu mooy lan mooy di jaamu suñu borom subhanahu wa taala kem li nga xam ne noonu la ko digale waaye di moytandiku li nga xam ne mooy tere suñu borom subhanahu wa taala kon loolu benn martaba la ci maraati bi nga xam ne mooy maraati bu tawba mu tekke ne wa tawbatul muxlisi ak tuubuk aji sellal min kabairi ci ay bàkkaar yu màgg wa tawbatul aduli ak tuubuk aji maandu min saxairi ci bàkkaar yi nga xam ne bàkkaar yu ndaw la ñaareel ba ci martaba yi nga xam ne mooy maratibu tawba muy degere yi nga xam ne tuub am na ko mooy tuubuk aji sellal aji sellal ji moom lan lay tuub ak tuubam mooy lan mooy day xereñe bu baax li nga xam ne mooy ak tuubam waaye it mu fas ci ab xolam li nga xam ne mooy ak njub rek di topp suñu borom subhanahu wa taala bañ a gis lenn lu dul suñu borom waaye bañ a aajowoo lenn lu dul suñu borom subhanahu wa taala waaye lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala digle mu koy jëf waaye lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala aaye mu koy moytandiku waaye di moytandiku li nga xam ne mooy bàkkaar yu màgg yi nga xam ne bàkkaar yi nga xam ne moom la ñu tudde bàkkaar yu mag moom du ci def benn benn du ko ci def waaye li nga xam ne mooy bàkkaar yu ndaw yi dina ca moytu kem kàttanam kooku mooy ki nga xam ne mooy tuub tuubuk li nga xam ne mooy al ixlaas di koo xam ne day sellal kon ki nga xam ne mooy sellal moom tuubuk aji sellal moom ni muy demee mooy benn bàkkaar bu mag du ko def waaye bàkkaar yu ndaw yi dina ca moytandiku kem kàttanam bu dee ki nga xam ne mooy alaadul nag mooy ki nga xam ne mooy aji maandu kooku moom li nga xam ne mooy bàkkaar yi mag yi sax daf koy moytandiku waaye day fekk boppam bu baax a baax a baax lenn loo xam ne mooy bàkkaar bu ndaw wala bu mag du ko jëf ngir soovental ko wala mu tuutal ko wala mu woyofal ko ba tax mu koy jëf jàpp ne lii du lu am solo te muy bàkkaar moom yooyu yëpp daf koy moytandiku moom aji maandu ji nga xam ne ak tuubam moom bàkkaar bu mag ak bu ndaw yëpp la yemale benn boo xam ne daf ko ciy def amut bàkkaar yëpp day maase ne ay bàkkaar la du ci xool bu ndaw wala bu mag waaye yëpp lay teet yëpp lay tege côté du ci jëfandikoo yenn ngir lan ngir jëmmi sàmmonteeg àq ji nga xam ne moo dox digganteem ak suñu borom waaye ngir bañ a wuute ndigal yi nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala digal kon loolu mooy tuubug aji maandu nga xam ne kon ki nga xam ne mooy sellal moom benn bàkkaar bu mag du ko def te bàkkaar yi dawee dina ko moytandiku bu baax a baax waaye ki nga xam ne mooy alaadul moom waxuñu la bàkkaar bu ndaw bàkkaar bu mag waaye yu ndaw yi sax moom du ko jege ngir lan ngir sàmmonteeg ak suñu borom subhanahu wa taala waaye ngir sàmmonte ak màggi suñu màgg ak suñu borom subhanahu wa taala waaye ngir bañ a woyofal benn bàkkaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala dafa digle ñu moytandiku ko beneen bi ci topp mu ne wa tawbatul aabidi ak tuubuk aji jaamu zil xayraati kadi borom yiw mimma ca la nga xam ne yasuuhu dana ko naqari minal asaraati ci ay pakkasal beneen ba nga xam ne moo ca topp ci maraati bu tawba mooy tuubuk aji jaamu ji suñu borom subhanahu wa taala aji jaamu ji suñu borom subhanahu wa taala nga xam ne léppam daf koy jox suñu borom di ko jaamu comme ni nga xam ne noonu la ko bëggee ba bépp pakkasal maanaam bépp njuumte boo xam ne def na ko wala lépp loo xam ne xolam bi jeng na jëm ci wàllu àdduna daf koy naqari ci ab xolam ne na kooku mooy ki nga xam ne mooy borom tuubug aji jaamu nga xam ne kon xolam bi li nga xam ne moom lay jeng léeg-léeg di jëm ci àdduna wala muy def ay pakasal loolee nga xam ne moom lay tuub ngir dellu ci suñu borom subhanahu wa taala kooka tuubam googee moom la ñuy tuddee tuubug aji jaamu ji suñu borom subhanahu wa taala nga xam ne ab xolam chaque jour mi ngi koy jëñ di ko jëmale ci muy bàyyi xel suñu borom subhanahu wa taala waaye di ko ragal di ko màggal waaye lépp loo xam ne moom lay jëf muy xool ne lii suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy gis bu fekkee ne jàpp na ne suñu borom subhanahu wa taala moom gisul suñu borom subhanahu wa taala tamit suñu borom subhanahu wa taala moom mi ngi koy gis kon saa bu nit ki eggee foofu li nga xam ne mooy jaamu yàlla yi nga xam ne moom lay jëflante digganteem ak boromam dana ca sellal bu baax a baax waaye dana bàyyi xel ne jaamu gi muy jaamu du jaamu goo xam ne daf koy def noonu rek waaye suñu borom moo ko digal. mu war koo def waaye war cee ànd ak ragal yàlla gu mat sëkk waaye war cee ànd di ko jëf ci anam wa nga xam ne ci la gën a selle waaye it fexey ba lépp loo xam ne mooy ay gàkk-gàkk di dugg ci li nga xam ne moo di ab xolam mu fexey ba loole lépp mu tuub ko waaye mu naqari ko te jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala rek tax wa tawbatu saaliki ak tuubuk aji sóobu yoonu suñu borom subhanahu wa taala liltifaati ci ay geestu min ilalin ci ay gàkk min ilalil xal bi ci gàkki-gàkki xol wala ci nëx-naxi xol wa min afaatin ak ci ay gàkk-gàkk tuubu ki nga xam ne mooy aji sóobu nag yoonu suñu borom subhanahu wa taala mooy mu fëgg ab xolam ci lépp loo xam ne lu mbindeef di aajo wala muy lu mel ni ragal mbindeef wala muy xemmam lenn loo xam ne moo nekk ci loxol mbindeef wala muy jëf dara ba cee xool mbindeef ngir ne mbindeef moo tax mu jëf ko wala dara waaye léppam daf koy jëf soobu su yoonu suñu borom subhanahu wa taala léppam mu koy jëf ci ak sellal waaye léppam mu koy jëf ci ak dëggal waaye léppam mu koy jëf ci ak dëddu àdduna ba xolam bii mu jël ko jébbal lépp suñu borom subhanahu wa taala ba dootul gis lenn lu dul jëmm yàlla dootul gis lu nekk ci loxol doomu aadama waaye dootul xemmem lenn lu nekk ci loxol doomu aadama waaye dootul bokkaale dara suñu borom subhanahu wa taala yàlla day jël suñu borom subhanahu wa taala jox ko jëmmam ju màgg ji nga xam ne moom la amee waaye wéetal ko waaye di sellal jaamu gi nga xam ne moom la koy sellal moom la koy jaamu waaye it di fexey ba dëddu lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala aaye mu dëddu ko waaye dëddu ci ab xolam ba du jàpp ci ab xolam lenn lu dul li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala gërëm kon kooku mooy loolu mooy tuubu ki nga xam ne mooy aji sellal nga xam ne kon lépp loo xam ne moom xolam bii mi ngi koy jàpp ci lu mel ni xemmem dara ci àdduna wala xemmem dara ci loo xam ne dafa nekk ci loxol mbindeef wala muy ragal mend mbindeef wala muy jëf dara di ci bàyyi xel mend mbindeef loolee bàkkaar bu mag a mag la koy jàppe boo xam ne daf ko war a tuub moom mi nga xam ne mooy aji sellal donte ne bu fekkoon ne ci beneen martaba la nekk boo xam ne yëggut ci martaba bi loola mën na koo bañ a jàppe bàkkaar wala dara waaye ci martaba bi saa bu fi nit ki eggee ci ak sóobu muy martabatu saalik saa bu fi nit ki eggee bu boobaa loola bu ko defee muy geesu lenn ni doomu aadama wala muy xemmem lenn lu doomu aadama yor wala muy ragal benn doomu aadama benn doomu aadama bu boobaa loolee dañ koy jàppe bàkkaar boo xam ne daf ko war a tuub ngir loolee mooy li nga xam ne moo koy dimbali waaye loolee mooy li nga xam ne moo koy tax suñu borom subhanahu wa taala man koo jéggal waaye loolee mooy tax tuub gi nga xam ne moom lay tuub mën a nongu waaye loolee mooy tax martaba bi nga xam ne ci la toll muy martabatu saalik di daraja ji nga xam ne mooy darajaay aji sóobu jëm ci suñu borom subhanahu wa taala mu mën a egg ci dara jooja fa nga xam ne fa la bëgg a egg waaye lépp loo xam ne mooy gàkk-gàkki xol ak lépp loo xam ne mooy tilim tilimi xol mu man koo moytandiku bu baax a baax a baax ngir ne loolu mooy li nga xam ne moo koy tax a egg ci martaba boobu fa mu ca bëgg a egg wa tawbatul waraay ak tuubug aji sàmm fil jihaati ca wàll ya mimma la nga xam ne yasuuhu dana ko naqari mina subuhaati ci ay ci ay ci ay subuha muy ci ay lënt lënt tuubug aji sellal gi wala tuubug aji sàmm gi mooy lan mooy muy xisaab boppam ci bépp lépp loo xam ne def na ko rek mu gendiku ko xool ba xam lii lu dëppoo ak lu neex suñu borom subhanahu wa taala la wala déet waaye dina xisaab boppam ci lépp loo xam ne moom lay def rek mu bañ koo def ngir mu doon poussière boo xam ne day naaw dem wala jëf joo xam ne daf koy jëf rek mu dem waaye day doon jëf joo xam ne saa bu ko jëfee ba pare day xisaab boppam ndax lii lu suñu borom subhanahu wa taala digle la mu war koo def wala lu suñu borom subhanahu wa taala moytandiku loola mu def ko te war koo jéggulu war koo bàyyi kon kooku mooy ki nga xam ne mooy ki sàmm ki sàmm moom jëf joo xam ne jëf na ko rek bu paree rek day génn ku ba xam jëf ji moom lu suñu borom digle la wala moom def na ci njuumte loo xam ne daf ko war a wëlbatiku tuub ko su ko defee nag loolee mooy tax saa ku ki nga xam ne dafa sàmm saa boo xamee ne jëf na loo xam ne dafa nuroo ak li nga xam ne mooy lënt bu boobaa loolee daf koy def bàkkaar waaye daf koy tuub di ko jéggulu ngir suñu borom bi subhaanahu wa taala man koo jéggal kon tuub googu muy tuubug aji sàmm mooy tuub la goo xam ne gu ama am solo la goo xam ne mën nañoo wax ne sax sëriñ bi li mu doon wax ci masaalik di wax ne wa kun uxayya daabital xawaasi fi kulli waxtin xaafidal anfaasi li anna kulla nafasin min rajulin jawharatun nafisatun lam tanjali yumkinu an yastariya al kanza biha la yatanaha xayruhu fanta biha kon ne na yow mi nga xam ne yaay sama mbokk na nga takk say cër ci wépp waxtu te nga sàmm say noow noy yi nga xam ne moom ngay noyyi na nga ko sàmm sàmm bu baax a baax a baax te nga xam ne noy yooyu de ay gànjar yu seer la ay wurus yu seer a seer la yoo xam ne su ko nit ki xamee mën na cee jënd ay yiw yoo xam ne du jeex mukk wala ay ndàmb yoo xam ne yiw ya nga xam ne moo ca nekk du jeex mukk kon ki nga xam ne moo sàmm moom dina fexe ba takk cëram yooyu ba lépp loo xam ne moom la ciy jëf rek bu paree dina dina ko mën a dina ko mën a xisaab maanaam dina ko mën a régler xam ndax lii lu suñu borom subhanahu wa taala gërëm la wala lu suñu borom subhanahu wa taala aay la léegi nag loolu mooy li nga xam ne moo koy dimbali ba du jëf lenn loo xam ne moom la suñu borom aaye ndax li nga xam ne moom la koy jë moom lay jëf da koy peese waaye da koy day xisaab boppam ndax lii lu mu war a jëf la wala lu mu war a bàyyi la su ko defee looloy moo koy dimbali moo tax sëriñ bi ne ixlaau abdin nafasan min taa yujibu xasratan lahu fi saa maanaam nit ki jeexal benn noyyi ci lu du topp suñu borom subhanahu wa taala maanaam def ko ci leneen ci loo xam ne du mooy yàlla sax waaye du topp suñu borom nee na loolu rek day waral pertange waxuma laa nag nga def ko ci anam goo xam ne doonut loo xam ne ci ak topp yàlla la doon waaye ci ak mooy yàlla la doon su ko defee boobu moom mooy pertange gi nga xam ne mooy pertange gi nga nga gën a rëy kon loolu yenn la ci maraati bi nga xam ne mooy maraati bu tawba di maratib yu ama am solo yoo xam ne su ko nit ki bàyyee xel di ko toppe noonu bu boobaa mën naa dem ba egg ca martaba ba nga xam ne mooy martaba ba ca gën a kawe waaye martaba ba nga xam ne moo ca mujj kon loolu lu ama am solo la di marati bu tawba ñuy teg foofu suñu loxo rek suñu ñëwaatee ci bind bii di ñëw incha allah ñu continuer ci fi nga xam ne fi lañ yem di tuub bu baax te jéggulu di wax ne lu ci jub ci suñu borom subhanahu wa taala la lu ci dëng ñu jéggulu ko di xam ne suñu mata di la in uridu illa lislaahu ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu